bokk na ci li waral ñu ñëw fii waaw parce que wax dëgg yàlla lii dafa metti trop daal dafa metti rey nit ñi nii ci ci ci ci ci Mali bi forol yi dafa metti loolu loolu moo waral suñu teewaay fii gis nañu bi affaire bi amee meurtre bi sëñ Bada bokk na ci ñu njëkk porté def ci ay révélation yu doy waaw moom laa la moo tax ma la justice pour Aziz Dabala ak loolu moo ñu fi indi parce que euh, wax dëgg yàlla yëf yi ñëpp xam na ne dafa metti ba pare dafa bëri ñu ciy wax te li ñu ciy wax dara leeru leen ci ku nekk yaa ngi wax sa version kii moo rey kee moo rey te pour pour nga mën a xam ki rey wax dëgg yàlla yaakaar naa ne kooku kenn rek moo ko mën a wax muy procureur de la république wa ilaa policiers yi ñoom wala yoon ñoom rek ñoo mën a taxaw ne kii moo rey léegi nga loolu tey moo ñu fi indi moo ñu fi dajale ñu ñëpp kenn ku ne tey yàkkamte na xam ki nga xamante ne moo def jëf ji moo xam góor la moo xam jigéen la mais ku la mën a taxaw wax ne la kii moo rey wax ju yàqu loolu waxi naa féq la parce que kenn xamu ko yàkkamti leen koo xam yàlla ko yàlla ko yàlla leeral ba nu xam ko bis buñ ko xamee nga incha allah rabbi ñu ngi ñaan yoon mu jox mu jox ñu ko rek ah jël ko yóbbu ko ba Pikine fa affaire bi amee woon mu sànni ko waa Pikine daal di dem loolu lañ soxla <laughs> parce que dañoo gis ngay wax xamante ni si peut-être que mhm. euh, man mosuma accusé mosuma wax damay damay joxe exemple ci réew mi mais man mosuma accusé parce que kenn mënu la wax ku rey ku dul ñoom ak ñi ko def ak yàlla suñu borom wala ak monsieur la procureur ñoom rek ñoo ko mën a wax mais léegi li ci des yëpp. man damay junj rek mais mënu ma la wax wax wax dëgg yàlla ne la kii moo. kii moo damay joxe exemple damay joxe exemple ma ne réew mi bu leen fàtte nit ñi dañoo soxor dañuy gis artiste am buzz ñu def tout dem ci sëriñ liggéey ko pour fay ko loolu xam naa ci lu wér. parce que Aziz déggoon nga ko fi muy siiw ay jamono dégg-dégg siiwatul jékki-jékki commencé waat tàkkaat gis nga ko buñ jéemee jéem seen i pexe kii wut mën na ñëw sax yabal nit mu rey la loolu mën na nekk exemple laa wax mais mënu ma la wax wax dëgg yàlla ne la kii moo ko def alors ci diggante bi nga xamante di Nabou ak bu ne euh, euh, lan nga jàpp ni moom moo waral njureel bi am xarit amatina comme ni ko Sénégal yi waxee wala amatu waaw xam nga loolu ñu bëri ngi coow di tuumaal te ka ngay tuumaal amaana xamaloo ko dara man de duma ko def parce que wax dëgg yàlla boo jàngatee nabu diggante moom euh, Aziz fi ñu jaar ba egsi fii jàpp naa ne Nabou du def jëf ju mel nii man li ma jàpp boog laa wax xaw ma nga wóoruma ndax moo def wala defut mais jàpp naa loolu te gisuma tamit lu ko war a mën a jaral kon nit ñi wax ñëpp ñi ngi tooñ parce que tey bu fekkee ne tey àtte nan ci kanam tuuti yoon setal tey nabu yaakaar naa ñi doon wax nabu ñëpp daneen ruus danaan am gàcce kon yaakaar naa ne mieux vaut daal ñu bàyyi lépp ci loxo yoon procureur bu ko defee bu génnee incha allah rabi dina leeral dëgg gi ñu ñëpp dinañ xam dëgg gi kan la alors gis nañu xamante ni moom moo na waaye ginnaawam ñu bëri wax ne que affaire da di ko attaché ci li nga xamante ni moom moo di turam est ce que jàpp nga ni rafet na wala tax yow da ngay da ngay partagé abi boobu ak ñoom waaw xam nga ba tey loolu nit ñi wax nañ ko rumeur la nit ñi moom looy la ñuy wax nee na nangam nangam nangam rumeur la waaye lépp rek xëy na dina leer rek comme ni ko waxee rek waaw nit ñi moom ñi ngi wax rek li ñuy wax xamuñ ci dara parce que maa ngi dégg sànq benn waay sax mi ngi koy wax maanaam ñi ñi war a wax dañoo waxut ñi warta wax rek ñooy nekk di taltali waaw kon jàpp naa ne nan xaar tuuti rek bu ñu xaaree lépp dina leer incha allah. am ba léegi loolu. waaw loolu yàlla suñu borom moo ko wax euh, ku rey ñu rey la bu ko defoon rek léegi léegi bu baax rey dina wàññeeku bu baax a baax loolu rek la parce que lii nii dafa métti quoi rey nit koo xamante nii yow assis amul jabar amul doom waali bu dee waali la xale la 23 ans la am bàyyi na bàyyi na ay doom nga yóbbu seen bakkan xamoo xamoo woon ñaata doom nan waroon a am seen i doom lan nan waroon def ci àdduna bi ñooñu ñëpp nga faat leen faat bakkan yooyu yëpp loolu la moo tax euh, bakkan kenn amul njëgam kenn amul pireem parce que même yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jullit nga lor ko nga dem yàq euh, yàq kaaba gi ñu tabax ko nga yàqaat ko ñu tabax nga yàqaat ko ñu tabax ko moo gën sax lor benn jullit waaw kon loolu waaw non justice soit faite pour Aziz Dabala rek parce que man déggul ma la xaw ma leen mais xam naa ne daal moom ah euh, yuux dina jëf fu ko foogewul. Hmm? waaw loo bëgg xam ne yuux dina jëf fu ko foogewul rek. cest à ah nan xaar tuuti rek. Hmm. waaw. d'accord man maa la wax loolu. des na ñeneen leen ci mbir yi. ah waaw tey mën na mën am lu nekk ci ginnaaw. parce que lii dafa yomb c'est terre parce que Aziz yorul loo xamante ne tey war nañ ko mën a fekk fii faat yorul xaalis boo xamante ne war nañ ko mën a fekk faat ko donc euh, pour man ki ñëw ba fekk këram faat ko loolu leneen la mais du ay affaire de agression kese déedéet du agression kese waaw ah, mais nan bàyyi lépp ci loxoy yoon rek bu ko defee ñu leeral ko ñu xam ah, waaw loolu rek la gis wax dëgg yàlla waa say frère mhm. say rak mhm. say doom mhm. am ay jafe-jafe nga bàyyi sa yitte yëpp ñëw assister leen non man assister wu ma pour kenn man je suis là pour justice pour Aziz Dabala ah. pour mu pour Aziz Dabala donc Ndeye Gueye nee na moom ñëwul pour kenn mais dafa ñëw juste justice pour Aziz Dabala donc gis ngeen Ndeye nee na je suis là pour justice pour Aziz Dabala donc donc mu mel ni benn day li mu wax ni dafa bëgg mbir yi leer parce que nee na la suis pour justice pour waaw pour ñu pour ñu pour ñu leeral mbir mi ci yoon maam waalo maam waalo ni ku yebu ñun ñëpp rek ku nekk na nga xoolaat sa bopp te mën naa ne guddi yi ñu toll sax ñëpp a xoolaat toogaat seen bopp tëggaat seen bopp man xale yii li tax ma ñime leen ma bëgg leen ndey gay moo tax parce que man ndege laa ci moom laa nekkoon daanaka seen kër laa nekkoon macha allah xale yi dàq ma fa bëggee ma fa ma jóge fa jóge bu rafet ñoom ñëpp nag bu ñuy dem programme sax sama kër la ñuy solo Maguette Secko Ndeye Xadee Nabou Lëyëg Xadi Bambara Kaja Diop du ma bàyyi kenn su ma limee rek damay juum xale yi fecckat yëpp dañ ma bëgg yaay yaay rek lañ may woowee yaay yaaye rek lañ may woowee as dabala mi bëgg ma respecté ma ba bëgg a fonk ma nag jox ma cër lool nag moo tax lii nii ko dal tey ndog-ndog bii ko dal tey ah wax dëgg yàlla lebal ko nit ñi de as dabalaa daa bégal doomu aadama yi ba bëgg dee te doomu aadama yi bëgg bégaluñ ko as dabalaa daa bégal nit ñi ba bëgg dee te doomu aadama njaay yi ko lii ñu ko fayee ñaaw na lii ñu ko fayee ñaaw na salte na waaye yal na ko yàlla leeral ci barke Seydina Mouhamed en tant que jigéen yen saa yi ngay dégg yenn wax yi ci ki nga xamante ne nii moo di Nabou Leye aussi coow li daal di bari lool lan nga ci wax ah Nabou Leye daal fi ne ni kenn mën a gën a wax dara si nabu Leye dara yoon daal moo fi nekk yoon la ñu xaar mu def liggéeyam ñu xool ba xam ni ñuy wax dëgg la am du dëgg waaw bu soobee yàlla waaw bu yoon bu yoon paree ñu xam liy dëgg ak fi dëgg gi nekk ñu dëgg rek lañ soxla fi ne ni te yoon rek moo ñu ko mën a may mhm. yan nañ ko yoon may ci barke Seydina Muhammad ndax lii dafa ñaaw mhm. moo suñu borom yàlla rafetal lépp daal ci bàkki Seydina Muhammad ah, tey bi nga yëgee mbir mi am na tey euh, en tant que être humain di doomu aadama tey lan nga yëg parce que àdduna bépp la metti waaw àdduna bépp la metti parce que lii dafa ñaaw lii nii tey dara jaru ko lii lii am fii tey dara jaru ko ci àdduna du alal moo ko jar du xaalis moo ko jar du succès moo ko jar du dara moo ko jar lii nii dara jaru ko ci àdduna parce que lii dafa ñaaw dafa métti as dawalaa amut ak kenn problème amut ak kenn histoire xulawut ak kenn lu dul ambiance fu mu nekk nit ñi di ambiance ñuy reetaan loolu nekk ñëpp mais nag lii la yàlla dogaloon xañ na nag lii dafa jiitu juddoom mais lii ñaaw na te métti na képp Sénégal bi kuy sénégalais rek lii métti na la kuy sénégalais xale yi ndaw yi sax li da leen a sama doom ji mun na Serigne Touba fan yi yëpp mënut a nelaw feebar sax la ko def ñëpp a feebar kenn wérul kenn lekkul kenn naanu barki Alaaji Fall lii dafa ñaaw ndax ñoom doon nga ne moom xalaatuma ko ci ba léegi fi ma waxee nii xalaatuma ne lu ñaaw sax dina ko dina ko ci def parce que Nabou Leye xamewuma ko dara lu ñaaw man lu baax laa xamee Nabou Leye xamuluma dara Nabou Leye loo xamante ne nii day war a tax ma taxaw di saalit maa ngi njott rek di sama njott bu rafet rek moo maa amagun yi nii sama yàlla am moom lañu am ñun ñëpp xamagun mën na la wax kii la mën na la wax kee la ñun ñëpp li ngay xaar mooy yoon def liggéeyam mën na teg loxo ñun ñi kii la te amal so droit bi mais daal li wér mooy jëf ji ak ku ko mën a def lu ñaaw mën a def def nga lu ñaaw loo xamante ne lii xaax lii histoire la boo xamante ne nit dootu ko fàtte ci àddina histoire la boo xamante ne nii du toog lu mat euh, deux jours te doo ko fàttaliku histoire la ci Sénégal parce que lii dafa ñaaw lii dafay ñaawal euh, kii yu Sénégal daal image yu Sénégal lii da koy ñaawal parce que lii dafa ñaaw ñaaw boo xamante ne nii kenn am na am na tàmbali mais amul commencement parce que man version yi ko nga bari na bari na man fi ne nii déglootuma benn version tribunal laay xaar version. ñoom rek ñoo jar a déglu ndax li nga ñoo la ko mën a wax li muy ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw man kiyeetuma dara ba tribunal waxee nag ba pare ma doog a xam ne nag yàlla rek mooy buur te nit moo soxor nit tamit lëndëm na nit kon géej nit kenn mënu koo xam fajal nit kon géej nit moo lëndëm nit moo soxor nit moo bon ndax lii ku koy def ku nekk nekkoon nit ku baax ku xalaat lii it baaxoo bàkki Allah ji fàllu depuis tiim sa nawle di ko def tiim sa nawle jël ay paaka di ko ko jam ndax alalu àdduna tam nekk numutali euh, numutali sax góor yàlla kon yow mu nekk góor yàlla kon yow di daw rek di yóbbul yaayam di daw rek di yóbbul yaayam yaayam jee nga xamante ne xamul lu du doomam jii yaa ngi dégg mu war a toog téye yaayam fu mu toog di di wax ci yaayam di jooy ñu def ko nii ki ko def nii billaahi yoon dañoo waroon a may ñu teg leen fii tëli bi rek ku nekk rek def sa wàll. bàkk sëñ fan billaay loolu rek la ñu a may rek parce que lii dafa ñaaw Aziz Dabala dafa baax Aziz Dabala day bégal nit Aziz Dabala daa bégal nit ñi ba sonn te nit ñi bégaluñ ko rey ko loolu rafetul jërëjëf jërëjëf muy kàddu yoo xam ne yu am solo la yu mu rotal te jii muy doy de kii dañ wax dama bëgg nit kuy wax ñu wax ci wax ci lu mu maîtriser wax ci lu xam parce que ay kilifa dañ seetaan te Dakar Buzz du site bu ndaw boo xam tamit ku jóg ñu tàllale micro bi Dakar Buzz day xool ku responsable mu dékk la micro nga wax parce que da war a wax rek da ngay wax Dakar man boog ma i micro seetaan li ci mën di dégg daal mooy que ni ñun xamuñu fekkeewuñu ku ci ñëw nag te nekk responsable dina la jox suñu micro nga wax sama yar ak teggin ndax lii kenn mënu la cee wax dara lu dul ki nga xam ne ñoom ñoo war ku ci wax da ngay làmbatu te lu nit di wax na a wax bu mu tax nga leen bëggee ma jox leen yeneen micro waaw. Dakar Buzz kilifa ci wax ay wax kilifa lañ ci wax. Fadel mooy dëgg bu boobaa sax gis nga tey am na ñoo xamante ne buñ leen tàllalee lépp woon ñoom xamuñu leen mais ñun ñi nga xam ñu ñooy wax ci feeñ ñun xam nañu dinañu ne kat waaw jiw lii ak lii ak lii pourquoi loolu te waaw yooyu duñ ko def d'accord d'accord yow soxna si soxna si kaay ñaar